السلام عليكم يمكن يبقي في تغيب نيتم ويجور ينو في فك ويجور يغوياك ويجور يجيجيني ديتل تيتم سنو ويجور باب الحاج عثمان سان بلاد تبارك الله ومن يو يو لك اللي تدو تلي في ساني كي كدو كبكوي جلت تياكار طريق الشيخ تسخل سله mel amna lu yokku ci sa xol cig féex arab yi dañu wax ni inna alkalaama la fi lfuaadi wa innama jucila allisaanu ala alfuaadi dalila xamuloo ni wax bu jógee ci xol xol a koy taataan waaye bu jógee ci làmmiñ kese kese day dugg ci nopp génnaat mu mel ni nag sa kàddu boole na ñaar te moo am solo moo di li nga fi génne yépp xaqiqa la kon nag ku weddi xaqiqa ci biti it sa xol nangu ko li mu wax ku ko dégg bu ko sa biti weddee it sa xol nangu na ko ba ca des nag mooy mu wax ko ci pas-pasu boppam te kenn neexalu ko ndax it li mu wax rekk mooy dëgg am na âge bu nga xam ne ku ca toll war a rusatee fen am na age bu nga xam ni ku ca toll war a rusatee wax loo gëmul te ñaar yooyu moo fi daje mu wax li mu wax waaw nag ñu sant ko mu mel ni itam kiy dem ba waral bëccëgu tey bii li mu waxi ca bis bu jëkk ba wax ko ci bisu tey bi doy na parce que kuñ ku sëriñ Babacar Si jox tariqa cheikh quarante neuf wëlbatiku dénk la sayid cheikh Ahmed Tijani 49 batailles, qui mu al le bil haq ci la dee parce que tombent ah, on peut tromper tous les peuples une partie du temps mais jamais tous les peuples tous les temps xamuloo ni nax nit ñi mën nga ko def benn jamono ndax dafa am lu leeragul waaye kenn mënul dëkk ci di nax nit ñi ba mu jeex te yàlla du ko leeral bés waaw loo tax li mu wax ci Sayyid Cheikh Ahmed Tijani tabarakallahu ah ñooy sunuy wayjur ñoo ko xamoon démb kon nag ñoom ñu seede ko moo ëpp doole waaw ah. mu mel ni nag ak ah, li mu wax ci wàllu njaboot yi te mu ñaan ma ni nit ku ne ni sama bàyyi ma gënal kenn waaye ñun dañu jàpp ni ku am sa yir cheikh sunu bàyyi nga waaw bu ñu sañoon lépp lu njaboot di defal baayam bu ñu amee occasion ñu defal la ko bu dul woon daayira bi it ñu def ko waaw waaw ndax daayira bi daayira bi nag ñun sa yir cheikh bu sëriñ Babacar dellu si woon it lu mu bëgg ci ñun bu jaarul ci moom du ko am waaw parce que xam nañu xam nañu li ñuy wax duñu dof waaw fa nag ñay dajeeg la fay xew ku ne luy sa cër xam nañu ko fii ñu toll waaw waaw ko defee kon nag yaakaar rek moo fi des وظيفة المنكو ونيل منكو كد دفل منكو فداو جنجل منكو تيسير دفل منكو أرجو الأمانة لولو تي طريق الشيخ تي حضر الشيخ الحاج مالك اك بوسرين بابكار تاينا لا هي انت بكتنك اك فور فور ak li muy rëy rëy rëy rëy ci nit ñi ndamam yépp mu ngi ci inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi يا ايها الذين امنوا صلوا عليه يا يا كرم يب foofu la tëdd te doy na ko ndam ndax itam ah yàlla mii sunu borom bind ñépp yilif lépp bu ne moom ak malaayika yi mu am du ñu deñ di def salaatu ci yonent bi moo tax mu ñaan jullit yi ñoom it ñu def seen wàlla te mooy ñu def salaatu ci yonent bi kon nag muy benn xeer benn xeer dem ñetti picc waaw benn xeer jam ñetti picc xeer bi mooy salaatu bi waaye bu dee ci sunu cadre boroom salaatu bi raxma la bu fekkee ni ci cadre malaayika yi la magfira la bu dee ci cadre jullit yi du'a la doy na waaw ku yàlla warlul yërmandeem malaayika yi ñaanal la sa borom njëggal jullit yépp ñaanal la pay ndax li nga sonn ci ñoom doy na waaw loolu tax ñu ni ku xamul rekk xamoo mbir nga tuuti te rëy waaw mag ñi wax ni su bu ne nga gis ilimaan walla borom njàng boo bi bismillahi rahmani rahim ni wa sallallahu moo tax ñu ni ku xeeb wa wa wa ji foofu xamoo lu xew waaw waaw wa sallallahu nee na moo lay xamal jege gi yonent bi jege yàlla nu mu demee waaw ndax bu ñuy pare ci turu yàlla rek pour bëgg yàlla nangu moo tax automatiquement wa attaché yonent bi ci yàlla sallallahu nag ala sayidina moo tax yàlla nga ni ala sayidina moo ko gënal nga ni ala nabiyina waaw parce que nabiyina nubuwa alalu yàlla ku ko neex mu may ko kon ndam newu ca waaye ala sayyidina amna ko xamni bu nekké sang rek domi bopama nu bo won ak yalla koy may waye ku fexe ba nekk sang sa domi bopul la nga ne ala sayyidina moko dakal dàqal lutax muni muhammadin ba ahmed nekk fi hamid nekk fi hamid nekk fi mahmoud nekk fi مبي ابن محمد بس كصيغة التكرار لا يعني يحمد حمدا بعد حمد يعني انت بكت بخل تي موم داك مو جار nga sant بخله ملوم مو جار nga sant بخله جيكوم مو جار nga sant boo xoolee taxawaayam mu jar nga sant bo dégloo kàddoom mu jar nga sant sant sant yu bari yoyu motax ñu jël fofu yépp nak faf teunkel ko ci duru wi waxu ñu Ahmed waxu ñu Hamid waxu ñu Hamid waxu ñu Mahmoud mais ñu no mohammed waaw pour yàlla firndel ko nak baat bi motax mu dencal ko liwaa'ul hamd dencal ko it al maqaamul mahmud waaw ndax yoyu mu bolé ci turu bopam waaw bu ko defé itam wa ala alihi am na nga xam buñ ne wa ala alihi ñu ni moy sëti yonent bi te duggul fofu yàlla pour mom al al ñaar rek la ñi dugg ci maqamul madh ak ñi dugg ci maqaamul du'a bu fekkee ñi dugg ci maqamul madh la mooy ñi ànd ak yonent bi ñu xam ko moom te lu war a nekk ci ñoom cig sell ñu def ko ci seen bopp ñun ñu ñoom moom maqaamul madax ñi nga xam ne nag maqaamu duaa la mooy ñi bokk ci yonent bi te sàggan te teewul yonent bi war leen yóbbaale waaw looloo tax ñu dugal leen ca muy ñaari maqaama waaw waa asxaabihi soog a ñëw waaw ñu ni ko yan ndog moom te muy dëgg ci sa yow sax dugg nga ci soxba ba waaw koo yan ndog moom te muy dëgg ci yow sax dugg nga ca soxba ba moo tax cheikh bu mag wax ni amul kenn ku yore turu yonent yàlla di la lakk ëllëg bokk na ci li mu terele yonentam yi mooy du ci tudd du tudd nit seen tur ñuy jaar ci sa tur ëllëg ngay demati safara manul nag waaw loolu tax yàlla mujj dellu si comme sédd na yonent bi ci inna allaha wa malaikatahu ba noppi foog mu sédd ab xeet wi mu dellu si ne huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min adulumaati ila annuur wut beneen salaatu pour njabooti yonent yi yi war a texe yàlla di defaat salaatu ba pour ñoom ànd ko malaayika yi mu mel ni degré booba nag borom gàcce nga laa ko moom lu mat a xàmmee la borom gàcce nga laa may ñoo moom huwa alladi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yuxrijakum min adulumaati ila annuur waaye ña fa yeggul nag tolof tolof ya ñoo dajeel yàlla tek len ko ndax am lu mu bëgg réparer ñoom it nee lu len dal ci tolof tolof ya bum len metti tax ñoom it ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma waaw waaw febaré ba febar ba jaxal la jaru ko bu sa alal wàññikoo jaruko ko bu la tiis dabee jaru ko yàlla nee duma ko tek ci barab ta bok àndul ak falawatun alayhim min rabbihim wa ulaika humul muhtadun waaw looloo tax bu nit faatoo ci walu tariqa sheikh li ñukoy wadifal diko defal fidaawu lan la yaa ngi gis ci wàllu rek tëralin waa duna ku am lu lu doy waar ci niveau tribunal ñu war ko àtte ba jël ko denc ko te àtte bi ñëwagul te ñu d'accord ci ak avocat yi pour ñu verser caution pour ñu defar ko liberté pour liberté provisoire du dëgg loolooy fidaawu fidaawu caution la yow wóoru la sax xamoo lu muy fekki waaye avocat nga fa waaye nga defal ko caution ndax li yonent bi wax ni man jaa yowma alqiyaama wa fi saxifatihi bismillahi arrahmani arrahim kaana muminan muuqinan na kuy ñëw ëllëg indaale sa dossier ma gis ni bismillahi arrahmani arrahim mu nga ca dossier ba pare naa ca ndax boole na la ci min al muminin al muqinin waaw ah jëm mi rek ñu bind ko ci sa kayit muy caution kon nag fa law sadaqu llaha la kaana xayran lahum bu fekkee nag muy muy lu ñu dund di seen pas-pas yàlla nee na bul xam yiw ba nu muy toll looloo tax mag ñi am na lu ñu xam parce que imam Junayd dafa faatu ba am ay fan imam Aljariri gis ko ci gént ni ko malaka ya abal qasim ni ko bi nga demee ba léegi lu xew mu ni ko nekk sunu njàng yu bari yeeg sunu tël-tël yu bari yeeg ndekete ay baat rekk ñuy jariñ imaam Junayd te bokk na ci ngënti yi nga xam ni ñoom la ñu parrainé tariqa cheikh mu mu laaj ko lu xew mu ne ko ndekete jàng mu bari me tël tël ci bari yi yépp ndeke ay baat rek a ñuy jariñ mu ne ko yan baat mu ne ko istixfaar ak besmela ak salaatu ala nabi